wa waa asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum internet yi nga xam ne yéen a ngi may seetaan internet waa di TV yi na naa ñëpp ah di wax ne leen man la Mbathio kontaan sama teewaay fii. d'accord Mbathio ñu bëggoon xam sa actualité. waaw sama actualité actuellement nii mu ngi nekk euh, sama deuxième single bi ma génne mu góor bu yaafus waaw ah, ko génne vendredi passé. Euh, ci promotion boobu laa nekk loolu mooy sama actualité ak yeneen single yi ci des ak album bi may préparé bi nekk à l'avenir d'ici décembre incha allah. d'accord nga tuddee single bi góor bu yaafus. Mhm. moo tax tur boobu. waaw góor bu yaafus euh, man dama nekk ci label euh, label bi maa ngi nekk ci label Elis Diriko kon ñoom dañuy bind seen woy rek composé jox ma man ma def te góor bu yaafus booy xool ci actualité lay wax mais xale góor yi nangul liggéey yi nekk ci biir kër yi soo bëggee dawal oto bu rafet. wala nga am kër gu rafet wala nga bëgg a li nga bëgg a dund il faut nga liggéey soo liggéeyul mënoo ko am loolu moo tax euh, góor gu yaafuus ëmb na yaa na yeneen nag. d'accord ñëpp xamee woon la ci danse bi jékki-jékki rek dugg ci musique la moo waral loolu. waa xam ne mën naa ko rek xam ne mën naa ko. te war naa ko est-ce que doomu géwél nga wala. duma doomu géwél <laughs> duma doomu géwél mais nag bëgg-bëgg la rek euh, ak destin ak fu la yàlla jaare

ñaa vie privée ak vie professionnelle bokkul. waaw ah, léegi ma lay woowee madame wala mademoiselle. boo ci bëgg ah. d'accord tey tey bu kenn bëggoon la nga génn ak yow pour la tax. léegi léegi sama vie privée sama vie privée nga nekk ba léegi yow nii. ah d'accord léegi ñu génn ci vie privée bi. Hmm. dugg ci vie publique bi quoi. waaw ah. li ko bëggee. gis nañ ne yow da nga da nga da nga am élégance quoi da nga mën solu da ngay sol ay yére de luxe ak yooyu est-ce que mën nañ xam à peu près mbaa lan lay dépenser ci abi maam par mois. wa par mois mënu ma compter nak ça dépend et eh, ça varie parce que période bokum na amna hiver amna benen période amna benen période tout temps yéré day changer motax mëno xam li ngay solo mais solo mom sama xol la dama ko bëgg euh lolu yalla moko def depuis ma nek xalé ba tay mu bëgg solo. kon ma tay day am benn budget bo xamné uniquement pour solo la quoi. kon été bi ñaata nga budgetiser xam nga bu ko parce que été bi jeexul à tout moment lu ne mën na changer lu ne mën na xew. Hmm. ay dàll yi ñaata ngay sol. non cherul nag dàll yi yemamaay rek. cinquante mille cent mille cent cinquante rek baax na man na ma neex rek dàll bi. romb na ko. na ma neex rek. <laughs> léegi ñëw ci sa carrière musicale. Hmm. ñu bëggoon xam la moo ci gën a marqué yan moment moo ci gënoon neex. sama carrière musicale euh, li ma ci gën a neex mooy sama single bu njëkk a génn muy coppate parce que ñu bëri xaaruñu ko woon te bi mu génnee aussi euh, gis naa ni ko sénégalais accueillir euh, surtout sénégalais lambda yi boo génnee fii ci ngay xam niñ ko bëggee fu ma leen fekk aussi niñ may accueillir loolu daal gën na ma neex moom sama carrière musicale. d' accord single coppate la. léegi lan lan ngay regretter ci sa carrière lan yan moment yoo xam ne bëggoon di ko fàttali. Le positif. Le positif Le yalla def rek moo gën. gis la da nga choisir mbalax pour musique est-ce que di nga tenter yeneen musique yi lu mel afrobeat comme ñom Viviane Chidid ñu koy défé ñom Adiouza est-ce que di nga xaw changer. Wa ñoo ngi ci afrobeat bi ñoo ngi ci ak studio bi LSD Record xam nga duñu bàyyi dara parce que boo nekkee ci dëkk nga xam musique bi xew. Euh, parce que fu mu nekk nii xam nañ ni afrobeat bi euh mu ngi partout dans le monde fo dem fekk ko fa mom la gëna tek ci boîte yi mom moy génn fépp ñu ci liggéey inshallah xamna d'ici fin août bi euh maximum début septembre bi inshallah di ngeen ci am euh, euh exclusivité bu nice bo xam ne def naa ko ak ay ndaanaan yu mag ku ci melni Serge Boye ni Côte d'Ivoire dem na fi bu yagul def ak mom featuring maa ngi def bëgg def ak waa Tufaan euh, ñi xamul Tufaan mooy ñu woy tere tere parce que xam naa ne woy boobu ñu xam nañ ko. du ñàkk di ngeen ci am ay ay surprise yu nice daal allah à part am na yeneen bi nii non non boo amoon da nga koy teg parce que yaa ngi ci euh, te nit nit kese la il faut ngay nelaw tuuti il faut ngay reposer wu di lekk di naan mënoo ko booleeg lépp te métier bi ñu nekk dafa xaw fiir tuuti il faut ngay concentré wu comme ni ma ñëwee def interview nii nekk ci sa liggéey nekk ci biir quoi bañ a bañ a jaxase ñaari bokk d' accord d' accord temps yi am na benn série bi def buzz yaakaar naa yaa ngi koy seetaan bu baax a baax a baax muy Pod et Marichou ñu bëggoon xam say acteur préféré say actrice préférée ak seen yu ci gën neex. <laughs> sama acteur moom Pod la ah Pod moom dafa galant xam nga di di di mën a yor ñaari jabar sama actrice nag euh, mooy tantaay Marichou bi ku neex ki rek <laughs> comment elle s'appelle encore Talena Talena dama ko bëgg moom parce que dafa neex. <laughs> Mm-hmm. <laughs> Uh, bu nga nekk ñetteelu pot. waaw bien sûr pourquoi pas. kon célibataire nga. <laughs> boo ci wax rek baax na yow ci série nga nekk nii nekkoo ci réalité. <laughs> d'accord lan mooy projet yi. projet yi waaw ñu ngi pare album bi ah. ñu ngi pare album bi euh, ak yeneen ak yeneen ku yor nag du sëqat te bu xamee foo jëm tamit doo egg. projet yi ñu ngi ci kawam mm, tournée yi dina ñëw lépp dina ñëw daal nañ ma xaar daal incha allah ci kàttanu yàlla. Mm-hmm. message bi ma ciy lancé euh, message bu nga xam ne dama koy wax sama euh, frère yi sama frère yi sama càmm ñi nga xam ne ñu ngi ci biir kër yi ñoo liggéey soo liggéeyul defoo dara mm, da ngay def loo xam ne du sa affaire. di nga obligé nit romb léegi benn gel nga këf saagam wala nga mbej ko agressé ko xam nga loolu dafa ñaaw wala nga dem fekk nit ku toog yor xaalisam yor di liggéey nga dóor ko ñuy waxee dóor marto jël xaalisam dem police di la wër fii yooyu amul sens dama bëgg ñëpp jóg liggéey ku nekk amal sa bopp dimbale say waajur dimbale sa bopp danga war a am suba xam nga jigéen sax mën na am chance pour dem am jëkkër mais ku góor yow yaay yor kër yow yaay toog ci biir kër gi gérer kër gi gérer sa yaay ak say jabar fekkee da nga bëri jabar fekkee benn jabar loolu yëpp yaa ko war a lijjanti moo tax ma bëgg sama mbokk góor yi liggéey je parle à personne nag ñëpp laay waxal même ku doon xëy sax 10 heures bàyyi 10 heures di xëy 8 heures ku doon xëy midi del xëy 8 heures loolu laay moo loolu laay lancé si single bi. jigéen ñi dañuy liggéey ñëpp ko moom dañu wax góor bu yaa fa su maa ngi ñëw ci jigéen ñi de waaw <laughs> maa ngi ñëw ci jigéen ñi. non non bàyyi ma fecc bi carrément li ma xaw a wu tuuti rek euh, comme groupe bi mu ngi fi ba tey bu ñu amee clip faaw ñu fecc ko euh, fecc bi mënuma ko bàyyi parce que fecc moo ma lancé ku fàtte la la fal moom folli la dafay yomb bàyyi ma fecc parce que tout récemment sama clip bi ngeen mujjee gis maa ngi ci fecc clip bii di ñëw dinaa feccaat incha allah kon bàyyi ma fecc fecc ak musique ñoo ànd mënoo leen taxale. non man artiste yëpp sama nit la ñom ñëpp la amal jamm ñom ñëpp la sékkal jamm ñom ñëpp lay dem seen soirée ñom ñëpp lay fétal wali sama frère sama frère la sama xarit la comme ñom ñëpp ñu nekkee sama frère nek sama xarit. Hmm, waaw Sénégal de mom xam nga so so xamé sa bop rek tuuti tuuti rek ñuy fogg na da nga réew wala fekk nga. reewoo defoo dara xam sa bopp rek la soo xamee sa bopp rek tout le temps dañ lay dëkkal foo dëkkul naan dafa réew dafa kii mais ku ma fréquenté wul mënoo ma xam ku may gis ni ci télé bi rek mën nga wax lu la neex mais loolu mënul ñàkk métier bi ak loolu ñoo ànd critique yooyu mënul ñàkk. man 89 ba léegi ñaata at la 27 set ah, c'est ça non xale laa wala mag laa. jugement non, jamais <laughs> man maay sama caatu yaay. Eh? <laughs> Hmm. Eh, wa li may tàggatoo moy maa ngi nuyu sama wa label bu baakha a baax a baax waa LSD Record Laye di nuyu tamit Mané jabaram sama xarit di nuyu wa sénégalais lambda yi nga xamné ne ñoo nekk ci biti ñi nga xamné dañ may wo chaque jour di ma nemmeeku di xol ci lan laa nekk ñu nekk ci naxar ñu nekk ci di wax tamit euh, ñi caabi féete ginnaaw yàlla dimbale leen ñu génn di wax aussi ñi nga xam ne ñoo tëdd ci lalu hôpital yi ñu jug wér ñu jug liggéey quoi comme ni ko suñ président waxee Sénégal émergent ñu jug liggéey tàkku dimbali suñuy waajur xam nga ñun ñoo ko mën a def kenn mënuñu ko defal ñu bàyyi tëdd beeg nelaw beeg naan attaay bi amul sens <laughs>